waa Dakaractu tey yéen doon xaaraat euh, suñu live yi suñu direct yi nga xam ne euh, depuis pratiquement ba ñu euh, lancé campagne bi ñu ngi ànd ak ci direct yi waaye tey gis ngeen tey séenoo leen ay direct daanaka gis ngeen ba tey ñu ngi Ziguinchor démb lañ fi ñëw waaye ba tey ñu ngi fi Ziguinchor gis ngeen sama ginnaaw bunt kër Ousmane ko gis ngeen aussi ñii di wàccee ay bagages ndax tey. gannaaw ba ñu defee Ziguinchor démb tey bu ñu xëyee dans l' après dem fële ci Kolda waaye finalement eh, giseen bañ dawee ci ngoon jaar Sédhiou ba tey eh, sànq ci une ñu egg fële ca Goudomp waaye finalement fa lañ defee demi tour delluwaat fii actuellement comme euh, ni ngeen ko gisee ñu ngi fii euh, Ziguinchor ba tey euh, ndax gis ngeen sànq fële ca Sédhiou dans l' après midi bañ fa duggee ci naaj bu tàng gis na aussi mbooloo mi nga xam ne génn na ba bañ déggee rek ba ñu yëgee ba ñu séenee lii di la caravane de la coalition Diomaye ñu génn mag ak ndaw góor ak jigéen topp si ginnaaw caravane bi kon donc foofu dégg ngeen fa aussi lii di discours Ousmane Sonko fële ca buntu préfecture ba. ndax bañ fa duggee gisee na euh, lii di un dispositif sécuritaire gis nañu euh, police aussi des éléments de la gendarmerie nationale foofu nag euh, le leader de Pastef Ousmane Sonko ngeen xamante ne ñu ngi nii fii buntu këram yëkkati na fa ay cadre de alerté ki nga te ne mooy le ministre de l' intérieur par rapport ak lii di kaaraange sécurité candidat yi foofu rek usman Sonko mu ngi wax ne am na ñi nga xamante ne ñu ngi waajal attaquer la caravane de la coalition Diomaye président diggante Sédhiou ak Kolda jot na sikkite ay kàddu ah dégg ngeen ko noonu kon donc peut-être euh, gis na ah, ba ñu eggee euh, fële ca li nga xam te ne mooy euh, Goudomp à une heure six minutes lañ fa egg ñu def demi tour ñu la laajte rek ah, par rapport ak li nga xam te ne mooy raison yi principalement li ñu xamal maanaam des raisons de sécurité ndax kii nga xam te ne mooy chargé de relation presse Ibrahima Diallo mu ñu xamal ne que li nga xam te ne mooy chauffeur yi daanaka démb journée bi yëpp dañ ko daw. noppaluwuñu démb ils ont fait dix heures maanaam ni toll si fukki waxtu ñu ngi ko doon daw ñu ngi toog seen oto ndax li nga xam te ne Goudomp Kolda distance bi am na solo trop moo tax ñu préféré delluwaat li nga xam te ne mooy fii si Ziguinchor actuellement fu ñu nekk nii dañuy dañuy dellu Ziguinchor demain incha allah la ñuy dem fi nga xam te ne mooy Kolda